إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد عباد الله إن الإسلام منذ أن بدأ نوره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ما زال مستهدفا من قبل أعداء الطهر والفضيلة لقد علم أعداء الإسلام أن المرأة المسلمة من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي فراه يخططون لها في الليل والنهار لإخراجها من أخلاقها بل من دينها ومما يحزن القلب أن هذه القتت قد تأثرت على كثير على كثير من المسلمات فهزار من تقليد الأعمى حذار من تقليد الغرب من تقليد الغربيين والشرقيين من الكفرة والمشركين أعداء الله ورسوله وأعداء المسلمين قال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد على جميع المؤمنين والمؤمنات أن يرجعوا إلى الله بالتوبة والإنابة ويتمسكوا بالآداب الاجتماعية التي أرشد إليها الإسلام فيها صيانة لكرامة الأسرة وxifz li mujtamail muslim ay yéen mbokk yu tedd yi ñu ngi sant sunu boroom mi ab jullit war a sax di sant fu mën a toll ñu ngi seede ne moom dong yeyoo ñu koy jaamu ni ñu koy jaamoo it kenn rek lañ ko war a royee yonent bi mu yónni woon ci ñun sunu yonent ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi ko nangoo roy ba ilaa yawmi diin ay yéen mbokk yi sunu boroom subhaanahu wa taala nee na nañ ko ragal ñun ñépp moo ñu bind jëli ñu ci benn góor muy sunu bay aadam ak benn jigéen sunu maam Hawa mu tasaare ñu ñu doon ay milliards ci kaw suuf ñee doon ay góor ñee doon ay jigéen mu ne nga la waay ragal leen ma man mi nga xam ne sama tur ngeen di laajante te xam ne maa ngi leen maa ngi leen di surveiller fu ngeen mën a toll yow mbokk julit nga la waay xamal ne lislaam bam fenkee yonent bi alayhi salaam indi ko commencé woote ci yoonu njub ba baa yàlla di yëkkati lii di asamaan ak suuf xamal ne lislaam du deñ doon jubluwaayu ay noonam mooy ñooñu nga xam ne ñooy noonu lépp lu sell ak lépp loo xam ne ngëneel la xeex boobu ñuy xeex lislaam ba mu tàmbalee ba ilaa yawmi diin ñi nga xam ne ñooy noonu lislaam yi xam nañ ne jigéenu jullit moo bokk ci gën jaa màgg ci sabab yi nga xam ne ab société dana ko am ngiree société ba doon société bu am doole doon société bu dëgër bépp mbooloo boo xam ni seeni jigéen baax nañu mbooloo ma lépp baax na bépp jigéen boo xam ne seen mbooloo seen jigéen yàqu nañu mbooloo ma yépp yàqu na looloo tax ba démbi lislaam ba tey ba ilaa yawmi diin du dañ noonu lislaam yi di liggéey guddi ak bëccëg ngiree nu ñuy fexe ba yow jigéenu julit bu baax bu tedd boobu ñu rocci ci yow mboolem jukkoy lislaam bu rafet bal rocci ci yow mboolem loo xam ne sa diine la loolee da ngay gis ne créé nañ ci ay mbir yu bari da ngay dégg ci ay société lu mel ne masalan sunu réew société yeewu yeewwi yeewu leen te mooy yéen jigéeni julit ñi da ngeen a doon ñoo xam ne da ngeen di nelaw ci biir néegul islaam na ngeen yeewu te yeewi seen moroomi jigéen yi nekk ci loolu te mooy bépp jigéen bu tënku ci diine tënku ci kilifteef ku mel noonu dañ ko yeewu ñu gisit ne mbokk li nga xam ne mooy famille islaam lay pii ba gën a màgg ba ko téye moom mooy jigéen waaye gis nañu it ne société bi du dara lu dul ay famille yu baax yoo xam ne nii dajana looloo tax bokk na ci seen guerre yu màgg yooyu mooy nu ñuy def ba jigéen teqalikoo ak jur nu ñuy def ba indi loolee ñuy tudde problème planning ba jigéen ñi dootuñu jurati loolee bu ko defee l'islam ni muy avancé dana dellu gannaaw ndax da leen a tiital lool avancé l'islam ba tey dañu naan la li ñuy tuddee ay diine ci kaw suuf la ca gën a bari mooy li ñuy tuddee julit ñi ndax li ñuy avancé benn avancé wu ko donte na ñoom xam nga dañuy teqale ci christianisme la ñuy tuddee catholique ak protestant ak lu demee noonu ala kulli xaal mbokk julit loolu ñuy def yépp nekkul loo xam ne lu yéeme la waaye la ca yéeme dëgg-dëgg mooy dañoo gëmloo jigéen ne julit ñi yéen góor ñi dañ leen a tooñ tooñ googu da ngeen cee war a fippu da ngeen cee war a génn combattre góor ñi góor ñi seeni noonu lañu loolee mooy seen wax loolu mooy seen jëf mu bokk lu metti lool mooy pexe yooyu ñuy woote jëmele ci alkaange adduna avant alaxira la bari sunu jigéenu julit ñi dañ leen a gëm dañ leen a topp ay yéen sunu doomi ndey yi ñi ngi leen di laaye biir ngeen moytu gën jaa màgg moytu moytu leen xalaat yi ñuy jóge occident moytu leen xalaat yi ñuy jóge penku ci dëkk yéeféer yi ñooñu nga xam ne dañoo weddi yàlla weddi dina yàlla ñooñu nga xam ne noonu yàlla lañu seeni noonu lañu la nga xam ne moo nekk ci ñoom ci avancement adduna ñu la koy taaralal ne la kat su ngeen bëggee avancer su ngeen bëggee développer da ngeen di fippu génn comme ñun ni ñu génne wallahi mbokk loolu naxaate rek la sunu borom nee na bum la nax mukk moyen yi ma xëpp yéeféer yi ñuy deme ko dikk fu mu leen neex xéewal gu ndaw la rek gannaaw sawara moo ci nekk seen wàccuwaay mooy benn la nga xam ne nekk nañ ko nga jàpp ne bànneex la da ngaa xamul rek waaye laajal sa doom yi dund occident suñ ñëwee nga laaj leen waaw ndax tubaab yi ñi ñi leen foogee ñi ngi noos lu ñu lay wax mooy déedéet tubaab yi ñi ngi ci jahim ñi ngi ci prison tubaab yi c'est des foules solitaires ay milliards yu ànd kenn faalewul kenn tubaab yi ñu ngi ci xat-xat tubaab yaa ngi xaru guddeeg bëccëg tubaab yaa ngi drogué wu guddeeg bëccëg amul kenn koo xam ne toppatoo na kenn loolee lañ lay nettali ci àdduna amma alaxira nag sunu borom mu ne gën jaa ñaaw ci mujj ma leen fay xaar loolu moo tax ba mbokk julit moytu leen gën jaa tari moytu ngeen baal bàyyi xel seen doom yi jigéen yi ak seen soxna yi bokk na xeex boo xam ne nii bu màgg tey ñu ngi koy xeex te jëmelu ko la nga xam ne mooy lislaam mooy jigéen ñooñu nga xam ne dañuy toog ci kër yi dañ leen di tuddee en prison à perpétuité mooy koo xam ne dañ koo tëj à vie loolu lañ leen di tuddee am na ñoo xam ne dañ leen di caricaturer ñu ne lislaam ñetti génn la may jigéen keroog bi muy génn di ñëw ci àdduna jóge ci biiru yaayam bi muy jóge kër baayam dem kër jëkkëram bi muy jóge kër jëkkëram tàbbi biir bàmmeel gannaaw loolu ñu ne ab prisonnier la mbokk loolee da ngay gis ne mbir la moo xam ne musiba mënu koo paase loolu moo tax ba xeex yi bari na waaye xoolal li nga xam ne sunu jamono yi tey mën nga cee teg bët mooy li ñuy tuddee lii di parité parité boobu nga xam ne liñ ci jublu mooy nee nañ tey fu ñuy faleeti buñ jël mukk góor ñi ñu jiitu jigéen loolu jaaduwut bal mbooloo may fal bu dee téeméer lañu juróom fukki góor ak juróom fukki jigéen ñoo ko war a séq temps yii may wax ak yéen ñi ngi li ñuy tuddee quinzaine de la femme ñanka ministre bi ma ngi ko ubbee ji dëkk bu ñuy wax ci loñ ca fuuta ñooñu nga xam ne xamuñu lu dul diine ak jikko ju rafet am na jigéen ni ñu fa toq seeni xel maa ngi ci dégg kenn ci jigéen ñooñu mu naan waaw na ngeen xam ne ñun bëgguñoo dem taxaw place imaam yi bëgguñu it imaam yi di ñëw di togg suñu ci nii waaye dañoo bëgg yem ak ñoom ci fépp foo xam ne dañ fay fale moo jigéenu tukulóor kañ la dugg ci lii la ko ci dugal mooy xalaat yu jógee Occident na am ñu ne jigéen génnal demal fu góor taxaw taxaw fa loolu moo tax ba góor xëy jigéen ànd ak moom xëy suñu demee góor tëju ca bureau ba jigéen ni jàmbur ñëw fekk ko fa yeneen bi alayhi salaam ne góor ak jigéen fu ñu wéet seytaane mooy ki leen ñetteel xool leen société yi xool leen direction yi ana ñaata ñoo ci takk seeni secrétaire waaye ba ndaw si demee léeg-léeg moo góor gi bokkuñu ay kaar góor ga ma nga nekk congé wala lu demee noonu ndaw sa dem na tëju góori jàmbur góor gi tëju ci kër gi ak mbindaan boo xam ne nii la ndaw si waroon taxawee ci société bi beneen moroomu jigéenam mooy ñëw loolu taxawe ko mbokk lii mbir la moo xam ne xel mu rafet nanguwu ko amul benn diine bu jóge kaw asamaan bu ko nangu góor ak jigéen yi muñu yàlla moo teral jigéen def ko muy chef de famille jigéen yàlla natt ko day doon koo xam ne day gis baax jigéen yàlla natt ko day ëmb di wasin aka neexoon parité boobu jigéen ñi dem ba ba jeex ñoom kay lañu wax eh léegi yéen góor ñi suñu ëmbatee jur doom bu déwénee ëmb leen jur doom parce que parité la maadaama loolu rek lañ jàpp comme ñun ñëpp ñoo yem mbokku jigéen a ngi nii bu wasinee daf ko dafay dem di nampal loolay am congé maternel ba wallahi maa ngi gis en Allemagne ay jigéen yoo xam ne dañuy dem ci docteur ñu coupé seeni trompe ba nga xamee ne dootu ñu am doom ñu indi certificat bi moom la ñuy boole ak seen demande d'emploi ci société bi ngir ñu mën leen a jël mu wóor ne la kii la jël moom c'est fini dootoo am congé maternité da nga mel ne góor di liggéey comme góor xasira dunia wal axira mbokk léegi da ngay gis ne lii mooy li nga xam ne mooy li am nga dem gis jigéen mooy ka nga xam ne moom la lislaam tàggat moo gën a yey ci mën a taxawe kër gi te lépp lu jum ci wàllu togg wallahi xam ngeen xel mu yàquwul jigéen dugg ca waañ wa togg ba mu neex mu mu tàjj këram yemul ak jëkkër dugg ca waañ ba togg ba mu neex tàjj jabaram xel mu rafet waxu ko waxumaa la nga xam ne mooy lislaam mbokk luy ba nga xamee ni nii am na lii nga xamee ni nii moom la ñuy gis mooy jigéen ñu bëri tey xeeb nañu dem liggéey yi bal dañuy naaw avion góor ñaa ngi naan naaw avion ñu naaw avion jigéen mën a bàyyi jëkkëram ci kër gi trois semaines mu dem Dubaï un mois mu dem Chine ne day wuti la nga xam ne mooy alalu àdduna bal lu gën a garaaw loolu ci ne dañuy liggéey da ngay gis jigéen ñu bàyyi seen jëkkër ne émigré nañ dem Espagne émigré dem Amérique nekk fa lu mat juróomi at fukki at bàyyi seen jëkkër fii wallahi wa rabbul kaaba am na suñu réew mi loolu mbokk da ngeen gis lu ko gën a doy waar da ngay gis ay mbir yoo xam ne képp koo xam ne tuuti nit mi ngi ca waxuma diine dañ lay woon armée américaine ñuy dem fële nga xam ne mooy Irak nga gis jëkkër ji gunge jabar ji jabar ji sol tenue militaire gàddu chakado doom ji ñu am bu ñëwee ba ci aéroport ndeysaan ndaw si jël ko fóon fóon jox jëkkër ji mu delloo kër ga moom mu gàddu mitrailleuse am dem xeexe ak noonu yi mbokk ndax lii da ngay gis ne waxuma diina ju yàqu waaye xel mu yàqu lii mooy xalaatu Occident lii mooy bàyyi ma googu ñu nekkee moom la ñu bëgg indi ci yéen ngalawaay lank leen xamal ne yow jigéen la nga xamee ne mooy poste ba gën a màgg bala sunu borom yàlla affecté moo gën a màgg ministère moo gën a màgg palais présidentiel mooy lan nga toog la nga xam ne uuf sa jigéen uuf sa waa kër moom la yonent bi alayhi salaam waxoon ne al mar'atu ra'iya fi bayti zawjiha jigéen day la nga xam ne mooy postam ci àdduna mooy dañ koo fal ngiree mu nekk surveillante nekk la nga xamee ne ni moom mooy kilifa ci këram ca tey boo demee Occident xalaatkat ya fa gën a màgg ñi ngi xalaat loolu mooy nu ñu def ba delloo jigéen ñi au foyer soo demoon Amérique ña nga fay créé lu ñu tudd des ingénieurs de maison ngir jigéen ñi mën a toog ci kër gi lii lépp mbokk ni ngeen ci bàyyi xel beneen xeex bu màgg bi nga xam ne xeex nañ ko lislaam te continuer di ko xeex lislaam mooy mbokk lii nga xam ne mooy muuraay muuraay lan mooy muuraay muuraay mooy li nga xamee ne tey ji ba nga xamee ne Occident futti nañu seeni jigéen ba nga xamee ne Occident jël nañ jigéen def ko benn objet benn jëfandukaay moom la ñuy publicité moom la ñuy def comme marché ni ngay jënde mango ak biscuit noonu ngay jënde jigéen ci wàllu njaaloo def nañ ko génne ko seen télé yi futti ko colloo ko la nga xam mooy colu góor loolee bañ gisee ay jigéen yoo xam ne ñi ngi sax ci diine di muur seen awra loolu da leen a dérangé da leen a dérangé ñu commencé démb ci seen journaux yi di caricaturer sunu jigéen ñu baax ñi jigéen ñi di muuru ñu tudda leen des tentes roulantes mooy tente yoo xam ne dañuy dox tudda leen ay signes ostentatoires jàpp ne ñii puukariwu ak feeñal rek moo tax ñu def ba tey boo demoon France ak feneen fudul France ñu xeex jigéen ñi ci jàngukaay yi ci liggéeyukaay yi ne bu fa kenn muuroo boo solee jumbox aawut bismillah xàppatil say wen di génn bismillah say poot nga ñuy génn bismillah waaye da ngay muur sa awra laa loolu kenn du ko fi defee loolu mbokk accident ma ngi ca yegg ba seen jukko yàqoo seen dina yàqoo waaye tubaab yi démb ya xoolal mag ñi daan seetaan filmu démb yi koo gis mi ngi sol robb bu buubu ba tubaab heure bu daan mandargaal heure bu daan mandargaal jigéen buy daw danaan elle elle a ramassé sa robb mooy dafa buub robbam ndax jigéen ñépp dañ daan sol robb yu buubu lan moo desoon ci kaw li ngeen gis seen sër yi di ko def seen diine ñoom ñépp da leen koo santoon looloo tax ku mel ne Saint Paul ci ñoom daana wax bépp jigéen boo xam ne du muur boppam ku mel noonu fu ngeen dajeeg moom na ngeen ko wat nel Saint Paul daana wax bépp jigéen bu dul musóoru fu ngeen dajeeg moom na ngeen ko wat nel loolu mbokk na ngeen ci bàyyi xel amaa yow jigéen a julit xamal ne xijaab sa diinul islaam mooy ka nga xam ne moo ko farataal ci yow moo ko farataal ci yow ci ay aaya yu dul jeex loolee ba nga xamee ne am na am na ñenn ñoo xam ne demu ñu cëgg dikkuñu guy mooy nee na ñooy ay julit lañu waaye tubaab yi sotti lañ ci seen doxalin am na ci benn jigéen boo xam ne benn doctorat la ci bind fële ci Égypte pour affaire yi xijaab yooyu mu ne xijaab daal ci xol lay nekk xijaab ci xol lay nekk waaye jigéen muuru teewu koo def lu bon jigéen futteeku teewu koo def lu baax ba ma dégg benn sëriñ boo xam ne dana dajale mbooloo mi ci ah bu dul jeex di wax loolu ci kanamu mbooloom di dajji la nga xam ne mooy xijaab di wax ne xijaab dëgg-dëgg mooy nga am sa fulla am sa kersa yaa xasrata ma ndax yow yaa gën a laab yonent bi alayhi salaam ndax yaa gënal sa soxla moo gën a laab soxna yonent bi alayhi salaam yonent boobu yàlla waxoon ne yaa ayuha nabi qul li azwajik wa banatik wa nisaai lmuminin yudnina alayhinna min jalabibihinna ey yow yonent bi waxal sa soxna yu tedd yu baax yu laab yu sell yi waxal sa doom yu sell yu baax yu taab yu laab yu sell yi ne leen nañuy muur la nga xam ne mooy seen awra ndax loolu fa la ñu war a yem déedéet mboolem koo xam ne gëm na la di wax ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah nee ko na muur soxnaam muur ay njabootam ay yow sëñ caam yow sëñ géy yow sëñ sekk xamal ne sunu borom mi ngi noonu nee na la waxal sa soxna yu ñu muuru waxal sa doom yu jigéen yi ñu muuru yow nag da ngaa am yërmande ci ñoom bëggoo lu leen naqari bëggoo lu leen déranger bëggoo indi fitna seen diggante maa ngi lay fàttali la yonente bi alayhi salaam waxoon abi hurayra nettali ko mu ne sinfaani min ahli naar lam arahuma ñaari catégorie ñii nar a dem sawara donte ne gisaguma leen benn mbooloo mi ay góor lañu ñu yor ay liif di duma nit ñi ey yéen waa GMI ey yéen waa LGI képp koo xam ne dem nga di duma say baay ak say doom ak say nijaay ngir salaire bañ la cay fay fekk na ñu ngay duma tooñuñu wallahi doo gis ajjana ey yow jigéen ñi yow sëñ caam ak jóob ak sekk ak saar sa doom yi jigéen yooyu nga bëgg lool sopp leen lool am ci ñoom affection lool yonent bi alayhi salaam nee na danaa mit ay jigéen ñu ñëw sama gannaaw dañuy bëri yére lool waaye buñ génnee dañuy rafle dañuy jël seen bopp yi am yuñ ca yokk ba mel ne la nga xam ne moo nekk ci kaw gileem mu ne ñooñu day duñ dugg aljanna xetu àjjana sax du leen xeeñ duñ dugg aljanna xetu àjjana du leen xeeñ ma loo mën xiyaama ko demul àjjana foo jëm su ko defee kon da nga am sa sa njaboot cofeel da ngaa bañ a réeroog ñoom mi ngi noonu yow nag yaa seet mbokk la nga xamee ne moom lañ tànnoon ci combat boobu nga xam ne mat na téeméeri combat lañ cay mujjee mooy li ñuy tuddee autorité lañ cay mujjee mooy kilifteef ba nga xamee ne sunu borom nee na arrijaal qawwaamuuna ala nisa góor ñi day ñooy kilifa yi jigéen ñi ñoo leen war a taxawe ngiree góor en général mooy ëpp ay at soxnaam ngiree góor en général mooy jox dépense ngiree góor en général mooy ëpp doole loolee ba nga xamee ne ni am na ñoom dañ ne déedéet góor ak jigéen ñoo yem ak kilifteef pour te am et pourtant bañ nangulu loolu ci biir famille bi tey demel ci armée bi gars yi ndax armée bi ñoo yem da ngay gis benn góor gu am cinquante ans di tóojal doomam ju am vingt cinq ans demel ci service yi ndax ñoo yem bal déedéet tey jii da ngay gis jigéen bi nga xam ne kër ga ba ka jëkkëram ne mbaadeel ko mbaa ba mu demee ci direction ba monsieur le directeur directeur bi yuuxu ko ba muy jooy waaye du ci teg benn baat lu tax lan la bëgg ci loolu muy ab salaire yal na yàlla yërëm sunu mbokk bi El Hadj Fajur Gueye daana wax secrétaire yi nekk Sénélec lenn da laa leen di seedeel genn wàllu li ngeen di defal seen chef yi su ngeen ko defalee seen jëkkër kenn du leen jiitu àjjana waaye non tubaab dana la war ngaa déggal sa chef amaa sa jëkkër déedéet yéen a yem égalité l'homme et la femme lii mbokk mbir la boo xam ne nii lan la ñu jural mooy bañu demee ba nga xamee ni nii góor ak jigéen ñoo daan sëy tey ñaari góor yi sëy wolof nee na ñaari kuy duñu bokk mbalka looloo tax ba tas bi jaaxle lool lool lool lool ñun ñi yàlla nattoo ñu def ay conférence daani ko gox bu la woo lan la lay wax mooy nu ñuy wax ci sëy yi lan moo ko waral mooy jukko xalaat bu bon boobu nga xam ne jigéen dafa nangu woon ca yàlla tax yaakaar payug yàlla ci déggal jëkkëram muñ ko ci yàlla tax loolee la ñu rocc ci jigéen ñi tey comme nag rocc nañ ko la ngay gis ne lu dul ñu yàlla yërëm dara du ci mujj lu dul la nga xam ne mooy tas ku dul jeex looloo tax ba yéen mbokk julit ñi góor ak jigéen nañ leen ànd ñun ñëpp delluwaat ci yàlla tuub dem ci yàlla ngoyaat ci sunu diine ngoyaat ci sunu jikko lii rek moo mën a sàmm sunu famille lii rek moo mën a sàmm sunu société bi ba ñu am dund gu teey ci àdduna suñu dee yàlla tabal ñu aljanna yàlla na yàlla defal ñu ko defal ko bépp julit wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ibadallah قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يردونكم بعد إيمانكم كفارا يردونكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم القير من أمرهم وما يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أيتها المسلمة الفاضلة أنت البنت أنت الأخت أنت الخالة أنت الأمة أنت نصف المجتمع لا أنت المجتمع الكامل أنت الأم أنت الأمة أين sunu mbokk yu tedd yi ñu ngi sant sunu borom te di ko ñaan mu julli ca royukaay bu màgg ba sunu yonent muhammad salallahu alayhi wa sallam gannaaw loolu na ngeen bàyyi xel bu baax sunu réew yi xalaat yi muy doxe mooy xalaatu occident télévision bi yar sunu doom yi ci njaboot gi mbalitu occident liy dunde mbalitu occident liy dunde ngeen bàyyi ci loolu xel sunu borom nag nee na ey yéen julit ñi su ngeen toppee ñi nga xam ne dañ leen jiitu woon yoroon téere muy yahudi ak nasaraan yi daañu leen wëlbati delloo leen ngeen doon ay yéeféer moo nan la ñuy nekk di jàng ci yéen aayay borom bi nu ñuy nekk di jàng ci yéen sunna yonent bi ba pare ngeen di wëlbati ku doon ay kéeféer loolee mbokk ñu bari tey ci julit ñi amatuñu chance toog ñu leen di wax qaala allah qaala rasulullah taluñu ko sax waaye yow mi yàlla wërsëgal chance boobu déglul sa borom li mu la wax nee na yéen yéenee ngeen ji xeet bu ñu mas a génneel nit ñi yéenee déglu lu baax di teru lu bon te yéen yéen a gëm yàlla bépp jigéen boo xam ne mi nga ànd ak muuraayam toog ca këram uuf njabootam daa war a xeeb bépp jigéen boo xam ne da koy puukarewoo ca pal ga mu am wala di ko puukarewoo ca col gu bon nga nga xam ne mi nga ànd ak rëbbum yàlla ak rëbbum yenente bi da koo war a xeeb bu dee xam ne boppam gannaaw ba sunu borom nee na yellul ci benn jigéen bu góor wala ji wala wala bu jigéen yàlla dogal mbir ba pare muy am lenn lu muy tànn képp ku mooy yàlla ak yonentam réer nga la nga xam ne gën jaama gi réer e yow sama doomu jigéen yow sama tante sama yaay xamal ne lislaam mooy ka nga xam ne moo la jox ay ngëneel ngëneel yoo xam ne mu nee su koo lim yow jigéen yow yaay doom bu jigéen bi ñu sopp yaay sœur bu ñu bëgg lool yaay tante di ñu fonk comme sunu yaay yaay bàjjen bi ñu jox sunu cëru baay yow yaay genn wàllu société bi déedéet bal jigéen yaay société bi yépp yow yaay yaay yaay mi nga xam ne lépp ci moom lay génne yow yaay la nga xam ne mooy xeet bi moom la boroom xam-xam yi doon wax yow yaay école bi nga xam ne ku la defar defar société bi yépp ku la sàggane sàggane société bi yépp yenent bi sallallahu alayhi wa sallam jamono bi nga xamee ne occident seen doom yi jigéen ñi tëna lañu leen seen doom yi jigéen ñi doon nañ seeni noon yonent bi alayhi salaam ne bépp waay boo xam ne yàlla nattoo na ko ci jigéen ñi dara mu rafetal jëm ci ñoom jigéen ñooñu daan doon kiiraay ñeel ko ci sawara hadis boobu buxaari génne na ko muslim génne na ko bal yonent bi alayhi salaam wax na lu gën a neex loolu man aala jaariyatayni xatta tabluga jaa yowma alqiyamati ana wa huwa ka hatayni képp ku yàlla wërsëgal ñaari doom yu jigéen nga téye leen ci rafetaay ba baa ñuy majeur yowmal qiyaama maag yow nii la ñuy ànd biir aljanna te mooy ni ñaari baram ànde yow sama doom bi dem ba nekk soxna yonent bi alayhi salaam nee na ki gën ci góor ñi mooy ki gën ci ay soxnaam yonent bi alayhi salaam nee na góor ñi àdduna lépp lu ñu fiy am kër gu baax oto bu baax tool yu baax lu ñuy am ci àdduna rek jigéen ju baax moo ko gën ay yow sama yaay yi ay yow sama soxna xamal ne sunu borom subhanahu wa taala defu la nga doon noonu góor dalaa def ngay complainte ak góor mu ne bokk na ci kaw téefam mu bind ci yéen def ñuy góor def ñuy jigéen ngiree ku nekk di dalal moroomam mu dugal seen biir tofeel ak yërmande lii day xalaat mi ngi ci ñeel ñi nga xam ne dañuy xalaat lii mbokk moom mooy sa diine amma bu la yàlla wërsëgalee nag ba nga doon màgg ba daa di am njaboot léegi lislaam fal na la la nga xamee ne ni mooy buur mi ngi noonu fal na la la nga xamee ne mooy buur te sax bala ñuy dàllit nga xam ne sa jëkkër jooju gannaaw bi la occident jàppee ne déedéet daa war a doon sa koo tollol mag buy defee nga def bu duggee nga dugg bu génn nga génn islam ne la déedéet jigéen day bu dee góorgóorlu na ba woor weeru kooram góorgóorlu na matal julli juróomam topp ndigalu jëkkëram kii buy dee di tabbi aljanna bal bunta àddina bu ko neex lay tàbbee amma boo demee ba nekk yaay benn sahaaba bu màgg mi ngi nii ñu koy wax muawiya ak jahimiya muawiya jahima daa ñëw ci yenent bi salallahu alayhi wa sallam ne ko yow mi yàlla yónni man kat sama arme maa ngi nii damaa bëgg a dem jihaad fi sabilillah mu ne ko waaw ndax yow sa yaay dundul mu ne ko hakay mi ngi dund mu ne ko dellul aljannatu taxta qadamayha addeda ji ngay bëgg mi nga sa suufu ndëggu yaay aljanna taxta aqdami al umahat addina mi ngi nekk nga toroxlu sa yaay respecté ko loolee mbokk mooy la nga xamee ni nii tey benn waay ñëw na ci yonent bi alayhi salaam ne ko waaw société bi may dund sama jabare ngi nii samay doom samay dëkkandoo samay kilifa samay sëriñ samay taalibe waaw léegi man kan laa war a gën a rafetal ni ma nekk ak moom ci kaw suuf yonent bi alayhi salaam ne ko sa yaay mu ne ko waaw gannaaw sama yaay mu ne ko sa yaay waaw gannaaw sama yaay mu ne ko sa yaay waaw gannaaw sama yaay ci ñeenteel bi mu doog ko wax sa baay lii mbokk da ngay gis kon yow jigéen gannaaw bi nga xamee ne boo demee ba màggee occident moom nal na laa nala nal ba di soo dara mu sànni la demal xool màgge di nekk occident ña ca am chance mooy nañu dugal ca hospice ca mbalit ña nga xamee ne ñoo ca des ay dof lañu ñuy wër ci biir dëkk bi ku ci amul chance am xaj booy àndal bokkatoo ci dara dara dara dara lii mbokk moom mooy jigéen occident laajal sunu doom yi nga xam ne ñoo dem foofu amma yow ci biir lislaam loo gën a màgget say cër di gën a màgg ñu lay gën a jox respect ndax say doom rek laa bal bépp doomu jullit bu baax fu mu la gis na la teral lii mbokk mooy la nga xamee ne moom la lislaam woote loolu moo tax ba yeneen bi alayhi salaam mas na wax sahaaba yi moo ndax du ngeen kaay ma wax leen li gën a màgg ci bàkkaar yépp ñu ne ko ah ah kayum yàlla yónni mu ne mooy bokkaale ak sa borom gannaaw ba mooy lan mooy def lu ñaaw jëm say waajur mooy uququl walidayni ñaawee sa waajur ci wax ju ñaaw wala jëf ju ñaaw moo gën a bon rey nit moo gën a bon jaaloo moo gën a bon lekk riba ndax kooku du kabair kese kabair mooy bàkkaar bu màgg waaye kii daa bokk min akbaril kabair loolu tax mbokk julit ngir tëj sunu xutba ñi ngi lay wax yow jigéeni julit fonkal ma sa kër toogal sa kër liggéey bu dee munta ñàkk na doon liggéey boo xam ne day jëriñ lislaam jëriñ julit ñi ci wàllu médecine ci wàllu njàngale ci wàllu leneen ak leneen su dee ne it sa jëkkër néew na doole wala amoo loo xam ne doy na man ngaa xool bépp liggéey boo xam ne du la teqale ak sa njaboot du te du tax ngay dem di jaxasoo góor ñi ak ak ñeneen nga daal di def loolu ca heure boo xamee ne jeex na nga dellu si sa kër xamal ne sa jëkkër bi la yàlla booleel mooy directeur ba la yàlla booleel wala général d'armée ba loolee topp ko ci yàlla tax mën naam sax yaa ko logé sa kër mën naam yaa ko ëpp alal waaye topp ko ci yàlla tax yàlla moo lay fay góor-góorlu leen fonk la nga xamee ne mooy seen muuraay yi moytul leen ma colcolu góor mariama ma nga nele moom la leen yàlla royloo mariama boobu sunu borom nee na moom day ah saddaqat bi kalimati rabbiha dafa dëggaloon kaddu yi boromam na ngeen góor-góorlu xam ne àdduna lu mu yàgg yàgg yàgg day jeex heure boo jógee bëgg a muuru muuraay yi na mu ware jigéen ñi bon ñu dañ la saboté waaye muñal ba ngeen daje ca morgo ba muñal rek muñal ak sa muuraay bu sell moom mu def xàppateeg ju mbox awut ba ngeen daje ca morgo ba da ngeen xam ana kan ci yéen moo nekk ci dëgg bu ñu leen defaree ba pare daañu xam ana kan ci yéen moo nekk ci dëgg gannaaw ba góorgóorlu leen gan jaa màgg góorgóorlu texe day nekkul ci wuute ak yàlla ak yonentam waaye texe mi ngi ci dëppoog yàlla ak yonentam yàlla na yàlla wërsëgal ñu dëppoog ay ndigalam yàlla na yàlla dox suñu digganteeg lépp lu mu tere ci ñun yàlla na yàlla musal ci ayu suñuy noonu yàlla na yàlla yee ñu góor ak jigéen teg ñu ala sirati mustaqim yàlla na yàlla defal ñu mujj gu rafet yàlla na yàlla sàmm ñu sàmmal ñu sunu njaboot yàlla na yàlla jéggal ñu bépp bakkaar yàlla na yàlla fajal ñu sunuy aajo yàlla na yàlla wërsëgal ñu texeg adduna ak texeg alaxira mu boole ñoo gëneen ci bekk sahabaam ci àjjana firdaws yi gën a kawe rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab annar ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين